السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي في تشي نغوم ماغيول كير مام سيغنالين با رضي الله عنه تاي ناك بوغن غيسه جمعه جي خليه يب دان ديم تي سيد حاج مالك رضي الله عنه واي كوتو سيد حاج مالك سي خل ديم تي مام سيغنالين با رضي الله عنه بل ا بيس بيغا خامي نينكي وادال موي تيمير ات بيغا خامي نينكو سيد حاج مالك فلي تي تكون تودو سيد حاج مالك tudd Seydi Alioune ba ni nga xamee yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa xel dana dañ Seydi Alioune Abi Talib karamallahu wajhu waaye itam ku tudd Seydi Hadji Malick sam xel dina dem ci borom rëwdu bi nga xam ne mooy maam Serigne Alioune ba doon góor yàlla doon muqaddamu Seydi Hadji Malick na ñëw fekk fi nag jàmbaari islam kenn koo xam ne bokk na ci jeexitalu mag ñi mooy Serigne Omar Ba yal yàlla gën a guddal fanam taxawaay bi nga xam taxaw na ci lislaam nu ah, war a def nag téeméeri at biñ doon def fële ci Tiwaawan nag njabootu maam Serigne Alioune ki yéene ko def fii ci kër maam Ba loolu moo tax nag dañu jëppal sëñ Mbay Ba moo wax ci bis bu tedd ma ko waxee xam ne wax naa leen ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama yi wax. damay wax ne amna aliyun Alioune mais Seydi Hadji Malick am na Alioune jox Serigne Mbaye Ba nga xamne tay moy doomu khalifa bu tedd bi nga xamne waxna ko legi ci bir jumaa ji ku ne xamne keur gi alquran moko ko dañu jebal kàddu gi Serigne Cheikhou mo ubbil ci alquran kayit wax yàlla len bismillah Cheikh Omar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم تبارك الله وكنك نجيب jébbal kàddu gi Mame Malick Seye mu ubbi eh, lenn ci ay kàddu rek ni ko baaxoo def di doomu sëñ Abdoul Aziz Seye bu Abdoul Aziz Seye bu Serigne waaye Abdoul Aziz Seye nga xam ne ba soxna Awa bu maam Seydi Alioune kon tey mel na ne waajuram la toogal bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيجي لي في نيو سنو سنو سنو باي سرين باي نجاي بدار di فتبارك الله tabarakallahu mbooleem sénégalais yi nga xam ni ñoo ñuy suivre ci seen بدار تي في di nuyu itam fa tabaarakallahu mbooleem kilifa diine yi fu ñu mën a nekk ci àddina noonu la ñuy nuyoo itam suñu maam Cheikh Alxaaji Amar Ba al Khalifa di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam yàlla yokk wéram ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu itam suñu bàyyi Serigne Babacar Ba imaam nga xam ne ñoo lenkoog moom nii ci suñu càmmoñ ñu ngi koy nuyu moom it di ko ñaanal yàlla lii nga xam ni moom la ñu bëgg a dëmbal muy waxtaan woo xam ni fas yéene nañ ko amante ak moom nga xam ne dañ ci jàngale lu bëree bëree bëri bëri bëri ci mbiru Seex Seydi Alin Ba radiyallahu anhu ak mbiru jamono ni mu tëddee fa tabaarakallahu Sëriñ mbay mu mel ne jamono dafa mel meneen woo xamante ni kenn ku nekk jaadu na nga dellu ca la nga xam ni moom la mag ña yoroon suñu Bay Mbay doon ne nag daf daan wax naan yow mii wane maamu jàmbur te sa maam gën ko farlu ware na sa maam farloo dana tax nga gën di suturlu حضر بيغا نيو نك موي حضر شيخ سيدي علي با ميغا خامني واخغا سانك ني يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا دينكون نكو علي شيخ سيدي حاج مالك يالا دينك نكو علي موي سيدي علي بي اك سونو مام شيخ سيدي علي با ميغا خامني جامبار لا سي خام خام سونو مام شيخ سيدي علي با ميغا خامني mbooleem ñi mu maaseel te nga xam ni dañu nekkoon ci jamonoom ñoom ñëpp nangul lañ ko bëri xam-xamam mën naa cee joxe misaal kenn ku mel ne Thierno Saïd Nourou sama bàyyi sin Babacar dafa ma nettali bis na na Cheikh Seydil Hadji Malick dafa bindal dafa bindal ijaaza Cheikh